Balla tamit pare na maa lay fay. di la ziar maa ngi lay fay. tey noo nu ma ko gisee bon man macha allah parce que waa Guédiawaye génn nañ comme ni waa Pikine génne woon parce que loolu mooy làmb ku nekk sa gox da lay gunge yaa ngi dégg bon pousser le vers la victoire. mais dama ne Babacar dama gis ne Boy daa indi waat Balla Gaye ci làmb te première fois bi bi ngeen njëkkee daje fi nga xam ne mooy Sorano dafa mel ni keroog la Balla Gaye ñëwaat ci waaw loolu am na ñu koy waxee noonu mais pour man baal la ma ta jóg ci làmb ji ah waaye nag nit ñi seen am na ñoo xam ne seen gis gis boobu la ñu amee mais pour man Balla mës si jóg ci làmb ji parce que Balla jël na Boy Niang te ba mu koy jël xam na ne ki mu jël maa ko jiitu ci làmb yaa ngi dégg bëri naa ay at mu doog a ñëw dugg si ci làmb kon sama rakk la ci làmb sama rakk la ci at kon defe naa ne dama naan xëy na kay am looy nëbb ak loo mu feeñ moo fii nekk waaye kanta dugal ci làmb ak bañ cee dugal moom bon dama naan Balla moom pour man ba mu jël avance la dugg ci làmb ji loolu laa gis ma mais su ma gisee booy ñaa dafa mel ni rapidité la la indi ndax souplesse la la indi ñëw mel ni ko xaw a wàññi poids est-ce que loolu arrangé. waa non li ko arrangé xam nga xam nga tey bon ça dépend ci moom ak staffam xam nga ñoom staff bi ñoom ñoo yore seen lutteur ñoom ñoo xam si ban condition de euh, ban condition physique lañ koy maanaam lañ koy préparé maanaam bu ñëwee lan la war a am ndax dafa war a am tuuti masse wala dañu dañu war a wàññi poids bi. pour moom rapidité ak vivacité loolu yëpp defe naa ne bu boo ko gisee rek ça veut dire que bi ñoom xëy na ñoo ca wax ba déggoo ca xëy na jàpp nañ ne adversaire bi ñuy bëreel pour pour ñoom i faut ñu gaaw explosif pour bu def liñ bëgg a def jotee ñu def ko yaakaar naa xëy na bu fekkente ne loolu am na moo ci xëy na Babacar tey gisaguñu ki nga xam ne mooy baala Gaye waaye bërki démb gis nga ko état bi mu toll bi mu indi moom tamit tey boo doon conseil Balla Gaye buy lay bëri non Balla Balla xam nga Balla moom boo bëggee dëgg-dëgg ami ami Collé mënu mënu ma ko conseil si bu dee dëgg rek la yàlla bëgg parce que Balla li mu def ci làmb jafe na ci ay moromam mbër bu ko def. tey bu doon bëri lan la war a li mu war a bëre mooy li ko estafam sant ak moom li ko xelam may ndax xam nga dama doon dégg coach bi ko yore tàggat ko bàyyi Balla yàlla na ko yàlla jéggal mu ne Balla Gaye kenn du ko conseil buy dem ci biir géew te kooku moo ko doon tàggat moo ko feeñal kon defe naa mbër mu mel noonu nag nga ko yoroon tàggat ko nekkoon mbër bëre ba bàyyi bëre tàggat ko ba Balla Gaye doon li mu doon ndagam moo mën a wax wax boobu kon man Babacar su dee dama naan damay conseil Balla Gaye ci biir bëre mën naa juum

li am solo moom li am solo mooy bés ba buñ ca yeggee ñu bëre ko ci jàmm mu jeex si jàmm que gañ parce que Sénégal lañ nag Pikine ak Guédiawaye ak Parcelles ak Bawol ak Njaamur ak Siin ak Saalum ak Casamance ak Fuuta ak lépp benn réew bi la quoi ñun ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi nañ ko teg ci cadre sport ñu def ko si jàmm mu jeex si jàmm que le meilleur gagne. tey looy wax supporters yi tey gis nañ barki démb benn journaliste dem ko ñu ñoom Balla Gaye muy jara ànd ak ab caméramanam ñu dem ñu dóor ko fa dóor yu waaw man moom rafetlu wu ma kuy dóor journaliste du ma ko mën a rafetlu parce que nag olof ne na génn golo gàtt na mais loolu ci laal morom ñu yëkku te ñun ñu yore ay micro ñun ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk baay yaa ngi dégg xaw ma nag lu xew ba ñu dóor ko ak lu xew bu fekkee ne daa dem pour ay xibaar kese ya waaw xam nga micro trottoir moom yaakaar naa ne ñoo ko dóor pour man Balla Gaye santu leen loolu ndax Balla Gaye moom du ne kenn dóoral ko yor micro parce que moom du ko doxale na ci mbër yi ma jàpp ne loolu moom dañ ko koy seedeel kon xëy na nag des fois nag am na ñoo xam ne dinañ la jëfal jëf joo xam ne des fois bu doon yow la doo ko def te boo leen boo ñëwee di leen yedd kon loolu dañ koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem di wax na rek nit moom boo ko bëggee xër baax na waaye nag dee ko koo cakum xel ba ba mu tax doo mën a def loo xam ne ëllëg dañ lay yedd parce que ñun moom encore une suñu liggéey la ñuy def ci côté Boy Niang ci côté Balla ci côté Modou Lo ci côté Tapha Tine ci côté Ama Baldé mën a bu ñu liggéey jotee dañ koy dem defi liggéey ba tamit lañ cay bëgg bu gërëgee mooy ñu koy def def ko ci cadre bu nga xam ne dafay professionnel tege ci yoon mënuñoo yey ñëpp nag mais dañuy xool suñu àqulaay taala rek def li ñu war a def mais encore une fois fu ñu dóore journaliste bu yore micro ñun dañ koy condamné di ko ñaawlu parce que dóore moom du sax solution dóor moo warta am nit ki su defee dara bu fekkee daa wàcc yoon police sa bu la jàppee da lay dugal ci teg la ci table bu laaj enquête bu enquête la yaa ngi dégg mais dóor moom rawate na kii moom waaw loolu moom dama koy balaamee merci beaucoup ñoo far waaye Ami Collé waay gërëm yàlla bu baax mu ci li ngeen nekk liggéey bi maa ngi koy rafetlu bu baax baax yéen a ngi di ko doxal ku la gis nga takk na ko xam ne jigéen ku mën góor ga tubaarkàlla macha allah fu ne yaa ngi fàq lu ne yaa ngi bëgg mu réussir yàlla na la ci yàlla gën a jàppale bu baax a baax am kontaan ak mbégte bis bi réussir na neex na gis nga ko bu Boy ñaa dem tey Balla Gaye numéro 2 yaakaar naa ne loolu amatul luñ ci mën a teg Wuré wa daal dem na kën waaye waxam ak demagul dañ taali ami collègue waxam ak demagul dañ taali waaye tamit gis nga bés bi li nga gis ne bu Balla Gaye indi na ko waaye dem gis nga ci bu bésu Boy Niang bi mhm. tey looy wax supporter yi waaw li may wax supporter yi rek xam ne Balla mook Boy Niang benn lañu bu dul woon Boy Niang Balla du am xaalis bu dul woon Balla Boy Niang du am xaalis kon supporters yi nañu xam ne ñoom ñaar ñu ay trésor lañu ñooy mayante xaalis ci seen biir comprendre nga bu baax a baax xam ne lépp esport la te sport dafa war di boole waaye warul tàggale loolu nañ ci boole lay xel bu baax a baax a baax après mbër yi suñu bëree ba pare ñoom ñooy mujjee nekkaat li nga xamante ne mooy ay xarit kon loolu na ci supporters yi bàyyi xel bu baax a baax xam nga nee naa euh, euh, yuuxu yi ak way ak tàccu yi ak succès lépp mbër mee ko moom supporter bi lu mu ci am félicitation ak di courage kon loolu na ci supporters yi bàyyi xel bu baax a baax jaru nga ciy xeex jaru nga ciy xuloo jaru nga ciy gaañu ñunu neen la Pikine mu ngi nii géejawaay mu ngi nii yaakaar naa ne mën nga dox dem Pikine mën nga dox dem géejawaay kon yaakaar naa ne nañu delluwaat lépp ci wàllu sport sport du boo du taxale tey boole kon nañu delluwaat xel yi bu baax a baax a xam ne Balla mooy may xaalis booy ñaa Boy Niang mooy may Balla xaalis. mais bés boobu ñu war cee gis ñaari ñaari ñoo xam ne dañoo mën a bëri. Boy Niang dañ doon wax naan ni mu gën a fooram mooy takk. mbër bu mu mës takk rek dem nga. waaye booy Boy Niang Balla Gaye kenn dootul naatable mën a bëreem. booy Niang ku fàttaliku kii Balla Gaye ku fàttaliku bésam baag Yékini ku bëreeg Moustapha Gueye bëreeg ay ndaanaan. yoo xam ne tey looy conseil Boy Niang. pied gauche la ak pied droit Balla Gaye numéro 2 lay teg Boy Niang pied lay teg. Balla Gaye mës na bëre ak pied gis nga la mu ca jëlee Boy Niang mës na bëre ak pied gis nga la mu ca jëlee muy koo xamante ni day jàpp doog a bëre koo xa koo xamante ni day bëre ba pare ba jeex te du jàpp muy booy Niang forewul ci jàpp rarement ngay gis loxoom dugg ci ngemb Balla Gaye numéro 2 foram li ci ëpp lépp loxoom bu duggee ci ngemb rek yaakaar naan ay supporteram mën na gestu nekk combat ba jeex na moo tax ma na la kuy jàpp doog a ak koo xamante ni day bëre ba bëre bi jeex te du jàpp ñoom ñaar suñu dajee dina am noo xamante ni mu fa demee parce que ñoom ñaar ñëpp ay technicien lañu Balla Gaye numéro 2 technicien la Boy Niang technicien la gis nga Balla fi mu jaar ak waa Pikine huit fois la fa dugg am fa six victoire ak deux défaites Boy Niang dugg euh, Guédiawaye sept fois am fa six victoire ak euh, li nga xamante mooy benn défaite comme ñoom naa ne dañoo dañoo bokk ay chiffres yoo xamante ni mënuñu ko séddoo ñoo bokk 1 bi ñoo bokk 2 bi ñoo bokk 6 bi ñoo bokk 7 bi boo ma ko laajee dinaa la wax lu dinaa la ko faram fàcceel. ma loolu li tax ma ñoo bokk 1 bi ak 2 bi laa lay njëkk a indil boo nee Balla Gaye numéro 1 Boy Niang numéro 1 daje woon nañu ñoom ñaar Boy Niang numéro 1 daan Balla Gaye numéro 1 booba gëstu naa ko mais fekkuma ko bu fekkee jiitu na sama juddu ñu ñu dajewaat ci 2 bi Balla Gaye numéro 2 Boy Niang numéro 2. nga indi 6 bi 6 bi mooy 6 victoire yi boole 6 victoire la Balla am Pikine 6 victoire la moom mooy siis bi nga xamante ni moo leen boole. boo indee set bi Balla Gaye numéro 2 27 combats Balla Boy Niang 17 combats set bi day ñëwaat foofu ba léegi comprendre nga bu baax a baax noonu la noonu noonu la fa demee. loolu mooy chiffres yi nga xamante ni chiffres yooyu boole na leen Balla Gaye numéro 2 Boy Niang mësul bëre premier janvier Balla Gaye numéro 2 mas na bëre premier janvier def na ay jaloore ci janvier. li gën a doy waar mu ngi ñëw 2 janvier 2005 ci làmb moom Balla Gaye numéro 2 mu ngi bëriwaat premier janvier Euh, deux mille euh, vingt deux bu bëree ba ca suba sa day nekk deux janvier di fête bi nga xamante ne moom la duggee woon ci làmb comprendre nga bu baax a baax le deux janvier deux mille cinq bu bu bëree ba ci ak Boy Niang ba ci ëllëg sa mooy le deux janvier deux mille vingt deux war a nekk li nga xamante ne mooy anniversaire am anniversaire am bi mu duggee woon ci làmb bi mu duggee woon ci làmb kon doonatul gone ci làmb moo jiitu Boy Niang li nga xamante ni ci làmb moo tax combat boo xamante ne combat buy doy waar la mais Boy Niang leen dina ko avantage tuuti ci combat bi pied droit bi muy tegal Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye numéro 2 saa sa toujours balaa muy daan pied droit rek day am problème bu bu rëy a rëy du ma ne nag mënul daan euh, pied droit mais balaa daan pied pied droit dina ci jëlee ay jafe-jafe yu rëy xool ko digganteem ak Gris Bordeaux xool ko digganteem ak Eumeu Sène xool ko digganteem ak ñeneen ak ñeneen balaa muy daan pied droite dina ci am jafe-jafe waaye li ci ëpp lépp defet yi mu jël ci pied droite la ko jëlee kon na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. du ma la bàyyi li ngay wax a neex. keroog ba ñu demee Sorano. Balla Gaye 2 di fa def li nga xam ne face à face moom ak i nga xam ne Boy Niang. Balla Gaye dafa oyofaloon làmb ji waaye dafa mel ni keroog jour boobu la Boy Niang indiwaat Balla. ñu bari dañu neen booy Niang dafa dugal Balla ci làmb ji mais man du ma waxee noonu dama naan Balla Gaye numéro 2 da doon nelaw Boy ko maa la ko wax Balla Gaye numéro 2 da doon nelaw ñaa Niang yee ko li tax Boy Niang ko Balla Gaye numéro 2 dafa ñëw pare gisuñu ci moom lenn loo xamante ne doole la gisuñu ci moom lenn loo xamante ne entraînement la Boy ñaa ñëw toll ni ko neex entraînement diis wow koŋ ba da ngay gis blouson bi mu sol tubéy bi da ngay gis ni mu seeree ci li nga xamante ne mooy cuisse bi mu wër na ne am na doole mu xool Balla gisul ci moom daray entraînement gisul ci moom daray doole sëkkatal ko ne ko maa la ëpp doole fuuf te bu suur baa di nga xam ne lépp dëgg la dinaa la duma dinaa la daan ci noonu la bala demee xam ne booy bi caaxaanul te daan ko rek la bëgg te bu ko daanee mën na tas géejowaay mën na indi ay coow yu bëree bëri ci géejowaay looloo tax bala dem liggéeyaat ba mel ni mu war a mel toll ni mu war a toll daal di ñëwaat taxaw loolu moo dugalaat li nga xamante ne mooy bala ci combat bi da doon nelaw da doon nelaw mais booy ñaa ko yee ca ba nga xamante ne jakaaro woon ñu ko suraanoo non ku ko gis xam ne à la pare seconde ya mu waxoon jën na ci dem poids ba mu indi woon Sorano ak poids bi mu indi dem bokkul wàññi na poids trop boo ko xoolee nag kooku mooy dafa bëri si dafa bëri si te dafa pare pour yóbbu Balla à l'usure ndax loolu Balla dina ko nangu ndax loolu Balla dina nangu Boy Niang yóbbu ko ko loolu mooy loolu loolu mooy wax bi mais li ci loo ci mën di déglu daal jour ji mooy état bi ma gis keroog nga xam ne Boy Niang indi na ko démb état boobu la indiwoon ci digganteem ak Tapha Tine. état boobu la indiwoon ci digganteem ak Lac de Guiers te benn réussite. non état bi wuute na la a diis la gën a diis boo seetloo bal dafa dafa am ñetti étape yoo xamante ne mu ngi ci Boy Niang bi muy bëre ak Lac de Guiers la gën a diis comme bi muy bëre ak Tapha bu muy bi muy bëri ak Balla Gaye la la ba muy bëri ak Tapha la gën a diis comme bii muy bëri ak Balla Gaye boo ko xoolee dem nga xam ne wàññi na poids bi te dafa ñëw pour bëri si dafa ñëw pour yóbbu combat bi à waaye loolu nag Balla du ko nangu te xam na ko nee na ko boo taxawee dëggal sa bopp xam naa dina ko dëggalaat tey dina ko confirmer tey moom Balla Gaye numéro 2 nee na ko du ñu bëri 2 minutes boo taxawee pour dëggal sa bopp ki nga xamante ne dafa pare yóbbu pour yóbbu la à l'usure dafa pare pour bëri ak yow 2 naa ne Ami Collé bu ngeen dajee dina am noo xamante ni ni mu dem Balla mënul xaar Baye Mor Balla mënul xaar nit la koo xamante ni ndox du bàyyi yoonam te alkaati du bàyyi dóor te baykat du gëj ci tool comprendre nga bu baax a baax combat bi am na nu muy nu muy nu mu nu muy demee bu naree yàgg bal dina accélérer combat bi bu sëggee suuf bu sëggee sigi tibaali suuf bu mébee xamal ne day fekki booy ñaar fi nga xamante ni nekk daf koy fettal xaw ma nag lan moo fay fekk booy ñaar daf koy remise wala Balla Gaye numéro daf koy yéeg droite loolu mooy wax bi bay moo mais yàgg yàggaay bi Balla du ko may ki nga xamante ne booy mooy booy ñaar parce que bu bu bu yàggee ki nga xamante ne booy booy ñaar a nekk xale boo gisee li nga liggéey nga xam ne combat bi bu koy arrangé loolu moo tax Balla du ko taxaw xaar la gën a waaye ci taxaw xaar la gën a waaye combat bii du combat bu mu war a taxaw xaar xam nga du tax combat teggi tuuma la ci Boy ci Boy Niang xam nga lan moo tax muy combat teggi tuuma dafa dugg ci génération 2005 2006 entre 2004 muy Tapha Tine Lac de Guiers amu fa lenn loo xamante ne moo ko neex yëpp daf ci jëlee ay défaite dugaat ci ki nga xamante ne mooy Balla même génération boo jëlee fa ñaari défaite am na sa diggante lu muy demee ak Balla Gaye numéro 2 kooku si supporter du ñu la ko pardonné waa lamb du ñu la ko pardonné képp koo xamante ne yaa ngi sport du la ko pardonné looloo tax ma ne la amul droit taxaw di xaar ki nga xamante ne mooy Balla diir bu yàgg booba ndax kenn du ko ko pardonné. la kontaan naa ci naa la yaay lamb waaye déedéet waaye <laughs> kii mooy lamb moo ne ma dama xaaral ma laaj la lu tax booy ñaa ñëwul ci ci li nga xam ne mooy borom kagul bi la ragal. borom kagul. waaw moom la ragal. booy ñaa daa indi kagul. kagul benn mbër nga fi xamee ci Sénégal muy Balla Gaye 2. roy du roy du piir roy <laughs> du piir de. daa indi kagul kanji kagul. waaw kanji kagulu kanju xam nga kanji waree fam la def diggante ak ku ku maam ku am ngor la mais booy ñaa ki muy bëreel est-ce que xam nga kan lay bëreel. est-ce que boo na Balla boo ñaa fa wéet ak ay mbokkam ci néeg mu laaj kan mooy Balla Gaye ñu wax ko kan mooy Balla Gaye xam lu problème bi ku war ñee ba wàccee ko loo war warees na la Balla Gaye war na lu ne ci làmb contre moom ak Yékini rek dana dana takkusaan dama bëgg waxtaan bi gàtt moo tax ma tibbee foofu Balla Gaye contre moom ak Tapha Gueye dana takkusaan maa daan moo loo ñaari yoon dana takkusaan ba booy nekkee naan Yékini sa conseil laa bëgg sama sama royukaay nga mu ne père père max mu ne ko waaw mu ne ma joxe Yékini ma daan ko ba mu koy wax gëm-gëmam la woon mais fi Balla Gaye toll fi la Boy Niang tey le premier janvier Boy war na wane wane wane boppam si examen yi mu def échoué. Boy Niang daa ñëwaat beneen anim. Ah, xaw ma kuy kot sam ak kan moo yor Boy liñ ko dugal loolu loolu daanul Balla Gaye Boy daa soufflé si combat bi. bugguma woon loolu ci moom toll waaw Balla mbër mi bëreeg moom boo diisut mënoo ko waaw boo ñaa nii la ñëwee woon ci digganteem ak ki nga xam ne mooy tafaati moo lan lan la fa jële la fa jële na blessure taxoon bëreew non non na bàyyi loolu ay parce que li intention bi ñëw boo ñaa ñëpp xam nañu dafa ñëw décision pour xeex ak Balla Gaye poids parce que Balla Gaye mënoo ko joomal bëree bëri la na lu ne. Eh, boo ñëw ah, Balla daa dàq bëri boo laa ilaha illallah ndax Balla Gaye daa dàq bëre Boy Niang. laaj Balla bëre maanaam bëre bu amoon maanaam xalifa général Balla Gaye xalifa général képp ku kuy mbër la ci bëre Balla Gaye xam naa dañu ma ab daa far faruma nag mais qualité Balla Gaye ci ku di mën bëre Balla ci ndaanaan gi mu doon Balla Gaye kuy takk ñemb ci làmb moo la dàq bëre daane na mbër du ne ci làmb mais Boy Niang ndaanaan la bañaluma ko nangul naa ko xamal ndax moo fi daan jël bu mbër musul daan mbër. Balla Gaye revanche mi bëri li mu nar a bëri ci jour boobu dafa bëri de. waaw parce que dëggal moo ngeeman Boy Niang mu mag mu bëreeg Balla Gaye numéro 1 mu daal koy daan moo ngeeman Boy Niang numéro 2 mu doon yegg saa kees mu daal daan daan saa kees moo ngeeman Boy Niang mu doon yegg les mais dëggal moo ngeeman Boy Niang numéro 2 mu doon yegg Balla Gaye numéro 2 ay waay lamb jooju ay jaay mais nag ragal kagul bi ragal kagul bi. ah cay Bira Sène lambu lu mu laaj bal da koy def falaa yem ba lambu jooju de yemal foofu ba sa baaraam aca mu noonu ñu waxuwaat dawaat ànd sama gaay tey lépp loo gis waaw mooy li ma la waxoon démb Assane Alassane Djigo wax naa ko léegi booy ma ne leen boo xoolee démb Assane Alassane Djigo boo ñëwee fekk bi culture Pikine képp ngeen di ñëw jàppale seen doom nga ñëw tey stade Amadou Barry même pas 18 heures nga gis fi stade bi yem nga gis lépp culture ba ci suuf Balla Gaye ko da xam ni bis moo toll noonu da xam ni ñaari mbir yi ñoom ñoo toll noonu moo tax bisu le premier janvier bis bu mag la ndax historique la Aliou Kolle bis la boo xamante ni lamb dootu ko fàtte de lu grave laa lay wax amul dootu ko fàtte ba pare ampleur mu nar a mooy ki ko tuddee moom moo toll noonu Thione Ballago Seck Baye Waly Ballago Seck nga xamante ni c'est un grand monsieur dans ce lu baax lu ne def na ko ci réew dégg na lu ne ba pare nit ku bari valeur bari woon valeur xam mooy kan du jëw du wax lu ñaaw du def lu ñaaw te lu ko nit mos a wax mu tontu la vite fait parce que xam nga lan moo tax gis nga nit su fekkee seen yow doo wax lu ñaaw doo jëw doo tooñ pour la tooñee ci saa si ngay bàyyi mu set moom noonu la meloon moo tax Wally benn message rek sa baay doo dégg lu dégg. mais yow tamit bi nga gisee liggéey ci combat bi wàcc wàññi poids laa ci gis. parce que combat bi cons boobu mu ne dafa bëgg a dafa ko ak Balla Gaye numéro 2 man dama gis ni looloo tax mu wàññi poids looloo tax mu athlète ci combat bi. waaye waaye est-ce que dina est-ce que est-ce dina ko def le jour du parce que Balla tamit Balla tamit parce que parce que Balla tamit non Balla mën booy bëri moom mën ngaa bañ a diis tamit mën nga bañ diis parce que dafa euh, combat dina toll foo xamante ni chaque combat ak poids bi mu laaj yenn diis yi arrangé wu mbër surtout maa gànnu su gëlee nationale boo diisee da ngay gaaw a sonn foo nga athlète foo nga taxaw physique combat ñi mu doon bëreel ñoo toll noonu xam nga Lac de Guiers neexul lu bëreel de Tapha Tine tamit neexul lu ñu ko booleel ay daanaan lañ te kii ñu ko booleel moo gën a dangereux Balla Gaye numéro 2 voilà ah mais lamb da ngay wax nit ñi ne wàññiwul dara kii ñu ko booleel moo gën a dangereux ay adversaire yi mu bëreel Tapha Tine bëreewul ak adversaire yooyu adversaire yi Balla Gaye numéro 2 bëreel Lac de Guiers bëreewul ak adversaire yooyu la ah, Lac de Guiers yëkk ni bëri nag yëg ne waaw mais mais adversaire yi Balla bëri laaw dañu garaaw te Balla lamb comme ni mu wax rek lamb doon ko dépassé mais billaahi Balla li nga wax qualité yi nekk ci moom moo nekk ci Boy Niang ci xeex ci mu lii mën naa la ko wax Boy Niang yow boo boo fàttalikoo bésam ba ak Sa Thiès na mu bëreeg moom ba ñëw ruŋkum daje na nga jël li ba ko ah ba mu bëreeg les deux mu bëreeg dof ba mu bëreeg ba pare Boy Niang li tax mu dangereux gis nga man Boy Niang li ma koy seetaan dëgg maanaam euh, ay adversaire am nga xamante dañ leen joxoon favori yëpp ci combat ak Boy Niang Boy Niang da leen a daal moo tax favori amatul ci làmb man amal boog man parce man li ma gis mooy làmb dootul ay réew ay réalité la nekkul ni sax man man gëmatuma mbër muy toog ci télé di wax de mbër mu taxaw mbër mu taxaw ci abonne presse di wax nii waaye gëmatuma loolu parce que ñi ko fi def ñëw noyé dafa bëri man li ma gëm mooy le jour du combat nga ñëw wane li nga bëri man loolu laa gëm ma xam ne champion nga kay nekk am na ñoo xam duñ taxaw ci làmb Boy Niang ak Balla Gaye dañuy xeex dañuy bël parce que ñoom ñaar ku ci nekk dafa am loolu téyel sa morom da nga xiif sa morom man xaw ma lu mu demee noonu Balla Gaye da ko den dencal Boy Niang da ko dencal Boy Niang da koo dencal da koo mel Boy boo xoolee bu dee boo boo déggee démb Boy Niang ni mu waxee rek nga xam ne dafa énervé Boy Niang su ma ko doon digal dama naan ko sa énervé boobu nga énervé ci open de presse bi ngay li nga doon waxee noonu bu ma sañoon booy bëri ji ci le jour du combat da nga koy bàyyi sa kër parce que lamb jooju il faut nga serein parce que la mbër la expérience bee bari l' expérience face à la jeunesse xanaa xamoo Balla mbër mbër lamb doonu ko dépassé Balla Gaye numéro 2 Boy Niang am na combat bu rëy Balla Gaye am na combat bu rëy lu garaaw laa lay wax nag bindal li ma lay wax rek. Balla du bàyyi mëninam. arbitre day siffler mu dox ci kaw Boy Niang wala bu taxawee arnasé wu ko Boy Niang dina ko cokkaas te Balla saa boo ko cokkaasee mu ñëw te ba te Boy Niang loolu la aay dafa jëw la cokkaas la nga ñëw loolu la aay boo ñëwee mu defal noonu la mel. lu weddi laa jël ma ne la combat mi bëri noonu la daanee waaye Balla arbitre siffler mu mépp ñëwoo dox sa kaw. ne ru kum daje jàpp la téye téye say ngem bu yaboo ay supporteram jóg mën fa kooram. wol bit gàng laa fay.